waaw nii ko Serigne Fallou Gallas Syll la waxee rek neen ko baaxoo def moom def noonu ko muy sëriñ bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne dana yable ca jumaa ji ne nañ seen du weer te lu ci waaye xam nga ñëw yile ko bi ñu defee noonu ba noppi ba yéene ko ba noppi di génn ci yoon wi Serigne Fallou Gallas Syll la di wax jàkk eh, eh, jub jàkkaarloo soow bi eh, biñ ko séentoo nun ñëpp yàlla dogal na ne gis nañ ko ni fi daje daal mbooloo mu baree bari la waaye ñëpp gis nañ ko ak ñiy téléphoné ci ah, ah, gox yëpp ñeen ñoom it gis nañ ko foofa bi ñu defee noonu nag leen ci war mooy daal di koy yëgal kilifa ga ñu daal di jokkoo ak kër si Muntaxa yëgal ko ko yàlla dogal mu daal wax ne kon nañ jàpp nañ def yëg léegi wane ne weer wi feeñ na waaw kon kon ñu xam ne weer wi feeñ na alxemes ci suba ji mooy <coughs> mooy kon benn fanu weer wi ñu jëm léegi nañ ko xam bu baax a baax ñuy sant bu baax nag ni ko ci ni ko sëñ Fallou Gass si lay waxee ñi nga xam ne jàpp nañ ci ñëpp rawatina waa mu xaddamatul xidma ñi nga xam ne ñoom dañuy teew faw dina ko dina ko seetle dina ko xool xolle bu bu buñ demee ba xam ci lu wérit ñu defal ko ci seen i machine ba ba mën a jot jot ci ñëpp kon noo ngi sant bu baax te ñaan sëriñ bi yàgg fi lool te wér te yàgg ci gannaawam